mais am na ci mbër mu ma gis muy gemb muy jógee bari ñi hmm. kooku ngembam dégg naa xadim sam wax ko waaye laata mu koy wax hmm. am na ku ma ko wax ginaa ko ni xale bi ngemb li ma gis ma di ko ngemb hmm. ku naqaree daan la man de dégg naa xale bi ñetti mbër wax ko euh, kii papi général wax na ko fi euh, bari na ay sëriñ soo xamante ni wax nañ ko fi Masila moo ko waxaat muy Quench Boy. mbër mu am mbër mu la moo nga xamante ni xawma ku koy gemb mais naxu ko. Hmm. wallahi wal quran <laughs> lu mel noonu du ngemb gone. du ngembal gone. Mhm. xam nga wax li nekk ci nit ki. Mhm. yàqul dara. te loo wax di ko waxaat. Hmm. loo seede di nga ko seedewaat. Hmm. te boo seedee loo wër a ci kanamu doomu aadama yi mm-hmm. soo demee ci kanamu yàlla yàlla dina la ko seedewaat yow ma naqatimu ala afin watu kalimina wa tasal arju bima kaanu yaksibun yàlla dana tënk lépp làmmañ du wax cër yëpp suñu borom dana ko introsé mu wax mm-hmm. kon lépp looy seede rek na nga ko seedewaat. am